aw fin maalikin mënu ko xaw soxna jaar si géej gi aduna mënu ko xaw lin sooñi na aw fin maalikin mënu ko xaw sooyaan bu sooy bu sabaay bismillah tee ma jóg way fi ngeen gilis na way ñu ma jombul boppam soxna jaar moo dib day ba ma del siri feeñaat yaram wa def ndaw bu sa baal mu jeeyaan kun mi ni fi tey ñu bew waay yow nga te way nga te faa nga te faa nga dala noppi de sellal yow la yàlla mu defoon suxub cuune du na woon kiin waal dala doj xajul ci nen bu sa baal la ñu waal bu saay bu sa baal soxna jaar yaa bu nit yéeg mbambaraar mu naan walwal dégg tuuf yi kenn ku mar mbaa ku gantu tey bañ a wal waa ndawal na jëm na fu ne dindi ci bu day gëndale ñi nangoo ñi gantu te fépp fépp lay darale ku yabu tex ku yabu bañ bàq baa ngi kenn kéréwul ñoo ko gëm gëm teex yi di ngeen ngi ceeboo faaw uma wal soxna daar bu sooy soxna daar bu soo soxna jaar bu soo bu sa baali soxna jaar yaa bu ni kéej mbab la déggatoo fi kenn ko mar mbaa ko gantu tey bañ a wal wane wal ma dem na fu ne gën gi ceebo day dindile ñu nangoo ñu gantu lu te fépp fépp lay dalale ku yebu tex ku yebu bañ bàq baa ngi ñoo ko gëm dañuy ni ngeen gi ceebo faaw mu wal soxna jaara si kéej maa tax daga muy daw lu ma seen bër rëy rëy du tee ndoxam may baw soo bu sooy bu sambaay soo bu sooy bu sooy mus la julee te jàppul mus la julee te yërdul tuubal ndaa di wër këram boobal nuy jooy dëkkandoom nuy njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta ma maaram sëriñ Jaara borom Daaru fekk bamba jaamam jam siir la jambaat loola moo defoon xaadam togg ndekkee jébbal taal am te dem rooti dongay xiif toolam soxna jaar moo sellal soxna jaar yaa bënn géej mbambalaat nu naan wal wal diggatu fi kenn ku mar mbaa tey bañ a wal bu soog soxna jaar bu soog soxna jaar bu soo bu sa baali soxna jaar bu soo bu sa baali jaar yaa man géej ma bor naan wal wal wal digg too fi kenn ko mar tey bañ a wal waane wal mi dem na fu ne gën gi tiibu dey gëndale ñu nangoo ñu gantu lu teel fépp fépp lay darale ku yabu teex ku yebu bañ bàq baa ngi kenn terewul ñoo ko gëm dañuy teexi ñu ngeen ngi ceebu faw nga wal bàcc njaay te gëj na juul génneel a bàcc njaay te gëj na joolal te gëj na joolal te gëj na joolal ngi tëgal fi la paasam waaju bëgg su gaal dem waaye bëgg dem gaal gaal te ka fi na paasam su ma yaar bu sooy bu sa gaal jaaraama soxna jaara bu so maam jaara mi fuuru puraxaan nu xuddiyu nu ngi dërëm bay coyaxaan gànnaar dërëm nanu ñëpp naan ba mandi bu sa baal yaay mbambulaan bu sa yaay bu sa baal Musa Baal yaay yaay Musa Baal yaay mbambulaan sam ndox dul ci xandi soxna jaar sa géej gi maa tan taka boy daw lu ma seen ba rëy rëy du tee ndoxam may baw soxna jaar sa doom ji dana fekk ba yaaba di xalam ak riiti di xalam ak riiti soxna Musa Baal jaaraam na moom asawaar nga féeru naanal nu xudd nu ngi turum bay Soroxaan maam jaar na tuur nu xuutu nu ngi turum bay Soroxaan taxawlu naa yal na seen subaana defar suñu biir baatinan aw baana wa balla biili Muusa ànd ak Sëriñ Tuuba te taggoog Muusa te yàlla la ilaaha yàlla la ilaha illallah te yàlla la ilaha illallah ngërëmoo ngërëmooy ak yàlla faal yu gandooy daale faal mbaa ngërëmoo ngërëmooy ak yàlla yu gën daaw li du ngeen xaar fa yàlla la yàlla la su la ngeen faal du sore Seex Mbàkke Seex Faal Seex baayu góor Seex baayu góor Seex baayu góor Seex Seex Mbàkke Seex Faal Seex baayu góor Seex baayu góor barke Cheikh Fall Cheikh Baye Góor Baye Góor Cheikh Mouh daana ay sëriñ koo Fall ay dara nar bi yaa moom kaw sara sëriñ koo Fall Fall ay dara ay dara nar bi yaa moom kaw sara ay lii duñu leen Fall yàlla la yàlla la du sora yàlla na sëriñ bi boo leen defal tawfeex seex dafa taw taw taw dañu dañu am mbég lool ci ndax sa yoon bële am na ku muy wax ni dañoo bëggoon mu sikkar sikkaras Baay Faal ndeysaan am naa ni Cheikh Sarr xolam sedd na ndeysaan tubaarkal la soxna Jee Mbay ci yëmbal ak ñoom ñëpp ñi ngi lay woo Cheikh Abdou Bakhi Thioune Touba kenn ne la wut waaye lii nag mooy dëgg ndax Cheikh Rafal hmm. day bakk sëñ Bamba xanaa xamoon ni Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh Sarr hmm. ku jébbalu ku ne ameen nga Cheikh Rafal njukkal bu dul woon moom nu réer bi mu jébbaloo ba ñëw dafa tëral article fanweeri góor la fa fekk ak juróom-ñeent moo leen ñeent fukkal ni kenn du togg a teg sëñ Touba ku su koy nuyu da raam baa mu sëf ngadd nga yegg fi suuf ah, ku ko seen bañ bañ ñu sëñ ba nañ ko bàyyeeg doxam bi mun ma nañ na ma bàyyeeg Cheikh Rafaal xobu xël la gi mu ñu tef xobu mooy Cheikh Rafaal kon lii ndokk bi nga yëkkatee si kar si ndax dañ ne woon doo dem mukk te yëkkati woo si kar si Cheikh waaw kati la kati la xam nga li gën a yéeme sëñ Assane nee na mi ngi lay nuyu sëriñ Mbow itam ca Pikine nee na jox na la xasida ak mu xaddimaat addiyee Sëriñ Tuubaa jërëjëf jërëjëf yaa ngi wax yaa ngi ak ñi nga xam ne ñooy taalibe cheikh yi monsieur le maire de Dieuppeul Derklé mi ngi koy firndeel que daf la sopp euh, woote na téléphone envoyé message di wax euh, cofeel gi mu am ci yow te Serigne Touba tax ak Alaaji Malick tax waaye it sama ay maam yoo xam ne dañu la sopp maam sa njaay maam Awa njaay ak maam Astaloo ñoom it dañu la sopp bu baax a baax maam sama mag joo xamante ne dafa barkeelu juróomi junni mhm. ci xasida Serigne Touba yi ngay yëkkati su ma ko jëlijee incha allah daal la koy weev nga jot ci bu soobee yàlla am a Euh, Cheikh Sarr ñu koy fàttali. ndax euh, euh, dafa nekk application boo xamante ne dafa yombalal mbir yi. képp ku bëgg xasaayit ah. Mhm. ci kati 360 nga koy amee muy jar 1000 francs donc numéro de téléphone baa ngi noonu di défiler au bas de votre écran pour ñëpp ñu bëgg joxe adje kii di sëñ Akassa Samb mën nga mhm. ko fa jaarale ci kati 360. ci xasaayit yi ci foofu laa bokk sax. la jàng naa fa ay xasida yu neex. nene yu am solo kati 360. maa ngi sant sañ sëñ Daouda Ndour barki démb rek dugal na fa xaalis bu bari ci kati trois cent soixante mhm. ñoo ngi wax taalibe yëpp aussi ñu téléchargé ko am ko aussi kati trois cent soixante waaw mi ngi doon téléchargé wala Play Store mhm. incha allah am na solo waaw déedéet saa bu ma ñëwaan uh-huh. moo may wax Serigne Saliou sañse nga waaw noo sañ seeti nga sañ seeti nga macha allah waaw man ak Abdoulaye Mbaye Peex. waaw suñu sama baay. sañ katee ko ñëw 631 52 52. dañ doon xaar ba fin bi rek wax ko benn yoon tey damaa nice. <laughs> dëgg la katee tax ma nice maa ngi noos. dëgg la 631 52 dëgg la ku bëgg yu mel nii rek.